احمد ايدغا بسم الله président Amérique bi day eh. Manela ma ne la fawul de déedéet tribune yéen a kaay ne Donald Trump day ah eh. ma ne la waxati na maar day taale waxati na ndaxte day réew Afrique yi nga xam day daal dina leen jox ndigal nag ngir ñu daal di dikkoon ca Amérique googu mën a liggéey aa maa la ko wax ma ci alxamis ñu génn day ca la ko génne lu tolloo juróom fukki réew ak ñetti yi nekk kon ci doon ak Afrique gi lay waaw ma ne réew day ca la waa Amérique googu joxe ndigal ngir ñu dikk ci dëkk ba na daal dikkoon liggéey eeway eh Samba maa la ko wax mooy Madagascar ak Afrique du Sud ga ak diwaanu Éthiopie eeway Samba kaane ma ne la gis nga ca jamono joo xam ne nag maanaam la ñu génnee kon liste boobee day waaw ca la Donald Trump mi ah daal di yëkkati woon nag ay kaddu day daal di xam ne ne gis nga Haïti ak réewu Afrique yi waaw ce sont des pays de merde la ilaha illallah la ilaha illallah ay waay wax day rafet waay lée daal di ne dik ne kon ay buntam ca Amérique ca Sénégal googee ah président France da nga waaj a dikk de bu mbul bañee lambay nangu loolay dëgg le soleil yéene kaay ne Emmanuel Macron day di président bu France waaw ma ne la benn fan ba ñetti fan ci weeru février gi day ñëw kon ci Sénégal waaye Sénégal day guddi toll nii Wow! Casamance tàng na le quotidien yéene kay ne Oumar Ampoué Wow! waaw nga xam ne de mission la day ci MFDC di kuréelu pipi nga xam ne ñoo nekk ca diwaanu Casamance dé mujj dañ loxo dé mar Italie ay ay da la section recherche gendarmerie nationale kon moo def lu mel box sobli ne ca dolli nag na beneen rebelle boo xam ne day rey nañu ko libération yi de ñi nga xam ne kon ñoo indi giraawaale ko kon ca boppaa googee waaw jamono ñu toll nii traqué nañ leen de sonn nañ de réew mi quotidien ne dama ñaari rebelle kon rey nañ leen ca Casamance googee Casamance day université day barki dee njaay tàng na lool tribune yéene kaay ne musiba yi nga xam ne kon day suñu étudiants yi ak ñi leen di jàngal looloy dëgg septembre 28 tey ca pavillon des mariés te lakk ko mi tey mi ti kon daal di fay am ba tax ñu ñàkk lépp deseetuñu dara seen ngor daal la ñu dese elles sont restées dignes te jàmbaar lañ nag seen biir néeg yooyee waaw dañoo war seen i condition la dundee cay politiciens ak ni ñuy dundee lokati yéene ne Moussa Sy day waaw waaw dooraat na amendement ah. maire parcelle ndaxte Moussa Sine bi yëpp ñoo war a nag bootu ci ginnaaw parti démocratique sénégalais uh-huh. Moussa waaw parce nag adduna bi yëpp xam na nun de kii waaw PDS rek moo fi mën a jàkkaarloo ak président Macky Sall mi li leen waxante dëgg maa gax ko ne dana jàkkaarloo ak ñoom de ubbil la ko tijjee yéene kay jiital grand parti ne gis nga tàkku saanu ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru mars waaw ca 2019 danañu fekk ca biir palais ngir ñu jëlee sénégalais yi nekkoon seen jafe-jafe yi nga xam ni kon moom la ñuy dund gi ne léegi kay leer mooy Malick Gakou day doon candidat ci élection présidentielle waa grand parti ne ñun de xalaatu ñoo bott ci ginnaaw kenn nag laa la wax waaw waaye ñu ngi laam-laamee ne président Macky Sall day dalal na recevoir na kii di Malick Gakou Malick Gakou ci laas ak le soleil yéene kaay c'est pas vrai loolee amul Macky Sall dajeewuma ak moom en public Malick day maay doon candidat bi ci 2019 ay da la Ali Baba ko mën naa ku mënul bawulu yàqu yawa barke Rasulullah mu nekk fi dana am deuxième mandat nan li jënti ba xam dina fekkee 2019 Macky laa koy wax man si Malick nan li jënti ba xam gën mu ne dee dana am deuxième mandat balaa nga naan naam ne fa la ilaha illallah la ilaha illallah Serigne Moustapha Sy ne dama ne Macky Sall bu génneewul Khalifa Sall ci kaso bi man maay doon candidat bi wax le Observateur ne moom président Macky Sall day dalal na waa APR yu diwaanu Pikine gee waaye xamal na leen ne leen seen résultat yi ci élection député yi dara baaxu ci dara ba dara boloo jeex te meeting de clôture bi nga xam ne dañu koo saboté woon day mbir moomee ni man naxaree cay APR bos sobi li ne APR bu Guédiawaye be tas na ba ni tasar mar d' itali mar d' yow ci jamono joo xam ne Aliou Sall ma ngay dalal ministre de la femme Ndeye Saly Dieng Diop waaw Alioune Sall gar walé bam neex parce que meeru Géejawaay way na su fi mous mi nekul day dina xëy di jay jay waye bu mous mi ñëwé dina xëy wut fuñ dugg waye leg leg na nga dajé ay dina xuy réew yu mëna sonal mous yéne kaa gi ne en tout cas day waaw Mariama sar ni ki daaw waaw mané ci ca day lañ ko dalal lol day ministre de la femme waye Ndeye Sali jak nii waaw ren kanam mo maire ba day lañ ko dalal mané la responsable APD dañu gëd la la wax ñu ñay liggéey ci mbalit ma day termine yéene kay nee na entre waa UCG ak Ibrahima Diagne waaw madani si ne gis nga UCG day bañ ko jébalee wàllu mbalit meeg léegi ni la déggoo fi grève de déedéet parce que ñun liggéeykat yi day dañ ñu cee boole dañ doon nee nañu duñu mës a jël parti socialiste laa wax ni la day di ko wanteer di ko jébal ab courtier xalaatuñu ko sax dialogue national ba ne tànk génneewuñu Khalifa Sall ci kaso bi boobee ñoom duñ ta bokk mukk ci këru adduna l'observateur na ñëw ak ci gouvernement bu bees ba ca Touba Serigne Bass Abdou Khadre Mbacké day ma nga ga ba léegi Serigne Moussa Noël mooy jëwriñ Cheikh Abdou Latif day moo ne ca suuf nag waxul waaxul waaye lépp mooma Muntaxa Gay bëkk nekk ba cay professeur Ali waaw nee Sénégal day bëgg fee doon léegi a président de la République ambition présidentielle waaw daanaka il faut nga jaar ci kaso ba nuppi di maara day waaw li moom pour nga doon président moom wala nga bëgg a doon candidat kaso ba rek eh waay samba professeur Ali Khoudia Diaw ne eh. waa 2019 ah moo kan mooy jàkkaarloo ak Macky Karim Dey gàddaay law nañ ko Khalifa ci kaso moo tax professeur kan mooy jàkkaarloo ak Macky Sall mi la <laughs> alaaji Mbete Bakar réew mi daal léegi kenn amatul droit ne damaa bëgg lii c'est bon moo tax laa la alaaji tëjal